sëñ tubaa mi nga xam ne seen Basiru Saar nee na bu leen ko wootee sëñ tubaa sëñ tubaa bari nay tur de leen ko wooyee xaadim kon seen xaadim yow yaay borom màggal gi xaadim nag foo ko déggee sëñ tubaa sëñ bamba lañ tuddoon bamba sàll lañ ko tuddee monsieur Amadou bamba sàll waaye daa dox ba mu yàgg ci rasulullah yi ne nañ koy wooyee xaadim rasulullah yi xaadim rasulullah yi mooy kii liggéeyal Seydina Muhammad تكد رسول الله موكو ساكوتي موم رام رسول الله من إلهي كوني خدم وعبد الله بوكو تك لحس عبد الله خادم رسول دنيا واخرى اسمة وخير رسول بوكو تك نفالي وابقائي وفوسي بلا انن بكوني خدم المصطفى تتبين كل خادم nga عندك ak sa bokku yi moy borom tribunal mahmoud gadiga koku bëgg na ko xam tribunal mo nek tribunal bu ndiarém and ak at mu jot nag nii ngeen di def xam ni seen bisu boppa ndax baayam rek nga yaakaar kon boo ñëwee soxna Anta ni ma andil ma rajo yi ndax xaadim mii lay day taalibe kër gi kon nag yow lañuy ñuy déglu soxna Anta nag kontaan na bisimilah. soxna Anta Sarr sunu xarit sunu lépp ñoo ngi lay ziare ci tullu délégation bi nga xamante ni moo jógee Njaareem. délégation bi nag xeet na ni mu ñëwee ñu bari amoon nañ ni yéenay ñëw waaye mën naa na wax ne ñi nga xam ne ñoo fi teew tey teewal nañ ñu ñëwut te loolu mu ko waxee nga xam ko délégation bi ñu ngi ànd ak sa xarit sa taalibe Serigne tubaa seen Serigne Khadim di kenn ci yow di koo xam ne mën naa wax ne ndax fii lu fu waaye di wax ne wax lu wóor luñ xam am na gërëmal sa sëriñ Bassirou Moussa ndax ba muy tuut tànk di moom mii wax nañ ne sëriñ bi ñëw na ba ci moom déplacé wu ñëwal ko loolu kon am na lu mu doon ci moom sëriñ Bay la tax mu def ko xam na ko ci xaadim mii di sëñ Touba muy kenn ci ñun di kenn ci yow ñu xam sa digganteek yàgg moom ndax yow buñ la xamee xame gi ci moom mii la jaare donte xamoo xamoon nga ñooy jiitu woon muy sama bàcc ga jege mi nga xam ne bis bii daa nga ma wax ne daaw ko tardé di sa xarit maa ngi koy sàkkul ñaan ci bis bii tey fa mu nekk yal na ko su borom teew waaye bi ñuy ñëw ñu ngi ànd ak Papa Ndiaye promoteur mi nga xam ne moom la jëmm ji doon wax di baax di sa xarit di nit social di taalibe seen Abdoulaye Mbacke nga xam ne tuddee na ko doom doomu sëñ Abdou Lahad déplacé wu tudd doom jël tuddoo ko sëñ Abdou Lahad moom la ñu àndal sa diggante moom ak sëñ Touba mi ab xaadim xam nga ko waaye di ànd ak taalibe sëriñ saaliwu lépp lu mu am Serigne Saliou la bu Ousmane Seck kii jëmm ji léppam Serigne Saliou Mbacke la am na ngërëmam mën naa mën naa ko wax ndax bis bi nga xamante ne bii mooy bisu sëñ saaliw bi këram la koy def woote wàcc alxuraan jàng xasida teral boroom alxuraan def bernde yi mu jeex. jërëjëf jërëjëf. yal na ko yàgg taxawee. jërëjëf léppam sëriñ Saaliw tuddee na ko doom. <laughs> jërëjëf. man mii di ànd ak yéen maa gën a tuuti ci délégation bi. man maay Mahmoud Gadiaga. baax càmmiñal soxna Awa Gadiaga bu sëñ Mourou Bissé. ah yow yaay sama mbokk. di tribunal nekk tribunal nekk ak sa xarit Cheikh Ñaan. yaay sama mbokk doomi Ñaan. damaa bàyyi liggéey ba ànd ak jëmuy tëdd yii ñëw siyaare si soxna ant ci bis bii ndax bis bii fekk ko njariñ la. su borom xewal la de. njariñ la ci fekke ko kon wuute ko moom teewe ko moo gën. su nitu yàlla la de. kon comme teewe nañ ko ren nag yal na yàlla dimbale bañ teewe ko ay déwén déwén bis bii nag bisum ñaan la ñoom lay dagaan soxna ant nga ñaanal délégation bii ñëw ak ñi fi toog ñëpp ci baas bi bàyyiwuma kenn du nuyu ñëpp. nga ñaanal leen ci barke bis bii seen ñëw gii yal nañ ko ñëw at at ca kanam nga fekkee lépp yow nag dañuy kontaan ci yow di la jox si wàccuwaay di la ziyaare bu baax a baax di fetli kóllëre gi di la xamal ne daal lépp luñ fi wax muy gàtt mu gudd muy sant ñun ñoo lay sant ñun ñoo la war a sant ndax ndax lii ñu ñëw nii tey dañoo wut si lu baax wut si tiyaaba nit nag bu fexee ba nga am tiyaaba loolu yow yaa ko war a sant au contraire ñoo la war a sant gërëm la bu baax a baax a baax di siyaare ñëpp di la siyaare yow mi nga xam ne yaa ngi ko xàmmee naa ci cérémonie yi. wallaay yéen waa presse bi lu baax ngeen di wax. lu baax ngeen di wax baax ngeen di seede yéen ñi nga xam ne commu yéene communicative nañ leen yàgg ñaanal ngeen yàgg fi ndax koo xam ne macha allah bu waxee ñëpp déglu ko dañ leen di ñaanal yàlla yàlla dëgëral leen. Euh, vraiment su Mamor waxee ñun waratuñu am sax lu ñuy wax. c'est que bu ñu fi ñëwee gannaaw yàlla sëriñ moo ñu fi indi parce que moom suñu xarit la ñu ànd depuis xale ba léegi soxna si di sëriñam di léppam chaque at damay teew te bu ñu fi ñëwee dañuy gis nañ ñuy taxawoo moo waral saa su ne ñu fi am sawar di fi ñëw pour confirmer li nit ñi wax rek sëriñ sëriñam sëñ Basiru Saar ànd naa fa ak moom ay yoonu yoon di fa ànd ak moom sëñ bi am lu mu ko doon seetal maanaam man ma fekk ko fa bi sëriñ bëggee tukki indi ko passeport am damaa bëgg tukki mu ne ko loo bëgg def ko nga maa bëgg a tukki sëñ bi daal ko koy tere na ko toggal te jamono boobu tukki moo xew sëriñ ne bu gorom bàyyi naa tukki bi te fekk bi ngoon ci yoon mun ne ko incha allah li gaa yëpp di wuti fële ba toggee fi di ko am loolu noonu am na parce que ñi tukki li ñuy am mooy yor kër sëriñ suñ borom jox na ko kër ba R plus 1 la jox na ko oto jox na ko leneen ak leneen kon li sëñ bi li ko sëñ bi waxoon kon amna kon ñun vraiment ñi ngi wax ni dal suñ xol sadna kaddu yi dañ ko doon soñu rek lu wax sëñ bi ni mu mel ak sëriñ di ñaan yalla ñu ko fekk ay ay yu bari ci barke sëñ Saliou ñu ngi jégalu ci kaddu yi nak assalamu alaykum ne ñi ngi sant yalla di julli ci sayyiduna Muhammad ne di sant Serigne Touba suñu wasila ne di sant Cheikh Bassirou Sarr jaamu Serigne Touba. nee mi ma boole ci yoon bi nee alhamdulilahi rabbil alamin nee di nuyu nag ñu toog ci baas bi ñëpp nee di am mbégte ak contentement ci délégation bi jóge Diourbel nee sëñ Xaadim nee nii ma sa àndeek man nee bu jaamu Serigne Touba ñëwaatoon it nee Xaadim du sens ak ne jaamu Serigne Touba rek a ko ñor tañee xaarim wane na ko ne ñii di ay xaritam mu ànd ak ñoom xam nañ ni moom jaamu Serigne Touba rek la am ne loolu lay dund te njaareem ne ñu ànd ko ak moom ne aar bu nekk nii lañ koy ànd ak moom ne sama xol sedd dina guy seen xaarim ne xoolul ci man lu dul jaamu Serigne Touba ne ba ma sampee si ba tey nee sëñ mii de nii la koy defee nee mënoon naa toog ni jaamu Serigne Touba day nekkatu fi nee day fer yoonu boppam li am am na ko ba noppi waaw waaw nee déplacement ak dérangement dafa jafe may sant sëñ Mahmoud Gadiaga nga xam ne mooy àtte l'islam te tribunalu Mbàkke nee di wëlalew Serigne Xaadim nee di nit ku baax bëgg Serigne Bassirou ngir jëmmi seen xaadim nee kon maa koy sant bu baax nee noonu la ma fonke jox ma cër fonk sama njaboot nee maa koy sant ndax damaa amoon nag magam wëllëre bàcc gajaga mu génn àdduna nee kóllëre googu nag mi koy sàmm yàlla na ko sunu borom àggale te saa borom sàmm kóllëre sant naa ko bu baax a baax ku ne xam na ne administration nee na leblewuñ baalewuñu te dañoo bàyyi seen yitte ngir borom bis bi nee ñëw taxaw ci bis kon ne sama xol sedd na nee di sant Pape Ndiaye promoteur nee di sant suñ xaajum seen nee moom itamit nee ba ma ko xaajul présenté ba nëgë ni lépp luy sama yitte ci kayit nee moo koy doxal ca njaarim nay maag sama njaboot te loolu ci moom mii ndax sama waajur daf daa wax ni mbaam bu yebee boroomu yeb ca doxin wala bu ma yeboon nee ñoom ñu yeb ma waaye da leen wax ni kii sama sëriñ moo dax ñoom ñi ñëpp jàpp ma kon sama xol sedd na guy ci yéen nee di sant taalibi Serigne Saliou Mbacké bi nee mu nekk Senelec Diourbel nee noonu la àndee xaadim nee jox ma cër bëgg ba si Sarr ndax moom mii la leen wax ni sëriñam nee nii la ñu nekkee ci bureau Diourbel nee ànd bu 16 heures la ñu ànd nee ànd bi maa ñaan ci barki borom bis bi xam ne amul ku dul moom nee muy jaamu sëñ Tuubaa nee mu téyel yal na yàlla bu yàlla tas yaakaar mais yal na yàlla dolli seen wërsëg seen sa mais sama na guñu ndax rafet na base bi heure bu ma ko tàntee nee mag yéen a koy ànd moom dong bi taal bi jaamu Sëriñ Tuubaa war na nit ci jaamu Sëriñ Tuubaa rek lay dox bu dul woon loolu du ñëw fii di fi dox te fii lay dugg fii lay génnewaat kon xaaral jërëjëf. daqaa jaar ci sëriñ Sidi Mbakke ibnu Cheikh Abdoulaye Lahat ndigal loolu jaar ci xalifa Cheikh Ibrahima Sarr Jasaaka mu ànd ko nag ay bokki boppam waajuram mu jigéen a ngi nii toog di sëtub sëriñ Aliou Diouf Lambaye mi nga xam ni moo sëriñ Babacar car Cargaan seen wax ju réy jooje ak sëñ Mor Maane ñoo ko waxoon Serigne Touba Khadim Rasoul jàkkaarloog tubaab bi seere lu rëy waaye wax wax ju rëy Serigne Aliou Diouf làmbaay moomu ci wàllu soxna ant Sarr ci kër ndeyam maamam mu ngi noonu. waaye xam ngeen ni Serigne Bassirou Sarr Diasaka di waajuram waaye xam ngeen ni Cheikh Ibrahima Sarr Diasaka ni ko Cheikh Mbacke ja waxe léegi ci bayit bi waykat yi dañuy wax ni Serigne Bamba yàlla la way yónne ak yónnenti ba waaye ñetteel ba mooy Cheikh Ibrahima Sarr Diasaka bis bi nag mu tudd ko mu tudd ci ay kilifa yu mu invité ci bis bi waaye ay kilifa yoo xam dana la jox cër ci bis bi bokk ci kilifa yooyu premier magistrat de la ville monsieur le maire Abdou Lahad Ka mi nga xam ni ñoo bokk Serigne Abdou Lahad waaye ñoo bokk Serigne Sidi ndax monsieur le maire Abdou Ka li mu yor ci ndigalu Serigne Sidi moom Serigne Abdou mii sëriñam di kilifaam di léppam ci moo tax monsieur le maire Abdou yabal délégation bu mag délégation boobu jarbaatam chef de cabinet di léppam mu ngi nii Serigne Mame Cheikh Ka waye ci délégation bi ñu ràññee ci PDC conseil spécial monsieur le maire Abdullah, Hakka mooy Alaaji Moussa délégation bi ñu ràññee ci le coordonnateur pour communication cabinet du maire Alaaji Madické Jean waaye léegi lay seen conseil municipal de la mairie mooy sëñ Moustapha Messere mi ngi nii toog moom it digganteem ak soxna Anta Sarr waaye mën naa ni délégation bi ci biir la bo ci délégation bi ñu ràññee ci aussi le président Modou Khouma bok ci ensemble municipal yi waye ak Modou Safor man mi di wax man na maa ci délégation bi kon ñi ngi leen di dalal ak jamm sëñ Sal euh Saliou Guèye moom itamit na and ak Moustapha Messere ñi ngi nuyu nak bolem ñi fi tew ñepp gan ñi liñ ci jublu rekk mooy soxna Anta Sarr dafa bëgg ñëpp toog mën a dal bu ko defee kilifa yi fii ñëw ñëpp ñu mën leen a tudd liñ fi war a wax lépp nu mën koo wax ci ak dal ca loolu li tax mu mën a nekk mooy ñun ñëpp rek ñu dal bu ko defee bu bernde yi ñëwee itam ñu mën koo jox nit ñi ndax nit ñi képp ñoo tax xéewal yi ñu def ci bés bi ñu fàgg loolu moo waral sax nag ay sécurité am ci pour ñu mettre nit ñi en garde pour ñu mën leen a calmer ñoo ñëpp ba li ñu war def lépp ñu mën koo def ci jàmm ak salaam. Modou Mbaye Ndiaye jërëjëf ci kàddu yi am solo yi nga xam ne jotti nga ko la li nga ko ci turu maire de la ville ñi ngi am mbégte bu baax Soxna Anta teew fii tey yàgg nañu fee teew ngir sa jëmm. mais tay dañ fay tew ngir Abdou lahat Ka maire de la ville de Touba ngay suñu wëlëre di suñu xarit di suñu sëriñ di suñu lepp saa buñ ñi fi jabalé wala bis bi ñëw dañ am contentement ak fierté bu ko ñëw fi ndax bis bi moom bisu ngëneel rek la ndax ki ngi koy màggalal ñëpp xam nañ liggéey bu am solo bi mu liggéey ci yoonu mu rek kon diñ koy ñaanal yàlla yokk ay leeral te taas ci barkeem monsieur le maire nag moo ñu fi yebal tey ñi def délégation bu am solo ñëw fi tey ci bis bi délégation bi ki ko jiitee muy alaaji maam Cheikh Kam yi di léppi monsieur le maire ñëpp xam nga ak ab Abdoulaye Ka maam Cheikh mu am taxawaay bu am solo ci wetu maire kon daanaka moom rek bu ñëwoon na day sot waaye bëgg bis bi am jëmm motax ñi def délégation bu am tol solo bi ñaan ci ko xam ci cabinet maire la nek moy ma dikke jien ñepp xam digënde ak maire diko taxawu ci taxaway bu am solo ak modou xuma mom tam bokku ci cabinet maire mom tam mu ñew and ak ñen pour jëmmal bis bi ñi ñew nak fekk fi ay conseil municipal ñi mën fee lim Moussa Messere moom rek moo naa wax ci turu maire ndax ñëpp xam na ni mu demee maire ba pare nekk conseil municipal di am am ku am taxawaay ci dëkk bi am taxawaay ci maire maire Touba kon Moussa Messere bi ñëwee fekk muy conseil municipal loolu délégation bu day gën a am solo maire nag dafa waxoon tey bi ñëwee nan la sant Anta Sarr bu baax ndax yow moom rakam nga xaritam te lépp lu mos a nekk ànd nga ko ak moom kon bis bi tey ji dafa xaw a girib jóge ci magasin Sëñ gi ñëpp xam nañ coono yi metti yi mu jógee waaye bis bi moo leen ñëwal boom di fi teew kon nee na soxna Anta daal maire ne mi ngi am mbégte bu baax sa taxawaay ak ni nga ko jàppee da nga def kilifa te loolu nangu na ko bu baax a baax a baax mu wax ni tam ñëw leen seeral mbokk yëpp ak taalibe yi nekk fii ñi xam ni diggante maire ak Anta Sarr diggante bu sori la ndax Anta da koy taxaw ci bare bare bare bare kon donc nee na gis na ni nga ko taxawoo gis na ni nga ko kon boobu sa bis bii bu ñëwee muy bis bu am solo ci yow yor naa mën a ñëwal teewal boppam ñàkk mën a teewal boppam nag ci ay jamono yu xal muy xaw a yaram yi xaw a sutante moo tax mu yebal nii nit ñi ñu ñëw teewal ko waaye dëgg yàlla daal nee na mi ngi lay ñaanal daal sa barke maam lépp loo xam doon nga def ci biir bi yàlla di la may wërsëg ak kàttan boo ko mën di defee saa bu ñëwee kon donc ñi ngi sant mbooleem ñi fi fekk ñëpp buñ ci tegee buñ ci nuyoo mu du bay Ndiaye day doy sëkk ndax moom tam ci délégation bi la bokk di bok ci cabinet maire am taxaway bu am solo ci maire kon deg nañ kàddu yi ngay wax legi ci maire Cheikh Mbacke Dia séré nako kon donc loolu lu am solo la kon dal ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di amaat mbekté bu baax sonu ant di ko ñaan fonu ko deug wér mu yag taxawe bis bi jërëjëf nga xamni ñoo ngi jóge ci monsieur le maire abdoulat Ka thank you muy ñii ànd muy Moussa Thioune mu le maire ak Serigne maam Cheikh Ka mu Serigne Saliou ak sëñ Madické Dieye ak ñoom sëñ Moussa Mesere mii nga xam ne daje nañ fi ak mairie bi ak sëñ Saliou Gueye sama doom soxna Anta ne maa ngi leen di nuyu bu baax ne di rafetlu délégation bi. comme ni ko monsieur le maire Moussa Thioune rek am naa ñoom ay wëllëre bu leen monsieur le maire woon it war nañ fee teew rawatina ñu ñëwal ko ndax li ñu bokk dafa bari ku xam ëtt bii xam ni monsieur le maire am na fi wàccuwaay nee ngir sëñ Abdou ndax Pak bi ku ne xam na ni serigne abdullah Lansar gi moko joxone jaamu Serigne Touba serigne Bassirou Sarr ne kon fi keur abdullah Kala ne monsieur le maire di nit ku bax ne di kuma fonk ne di ko fonk sama njabot ne di kuma ma téye bu bax ne di nit ko am yermande ci man ne tan xam lu dara ci man ne xam naa lu mu yëgut ci man. ne délégation bu yónni woon kenn rek doy na. ndax bu reeri daaw ya doy reeri reen yi du doy. ne monsieur le daal maa koy sant bu baax. ne ko di ko béral askan wi yëpp. ne di ko ñaanal ci barkeb Cheikh Abdou liggéey bi muy liggéey sëñ Tuubaa ci dëkk bii yàlla bu ko dara fakk ne ku bëgg sama doom ji la nee jaboot ku bëgg doomam rek bëgg nga ko nee mooy baayam mooy lépp nee maa ngi ñaan mu dund ba fay ko nga ji mi def ci moom nee Moussa sama xol sedd na de monsieur le maire nee Moussa maa ngi lay nuyu di la sant nag particulier nee di rafetlu say kàddu ak sa taxawaay Moussa yow yàgg nañu ngay nit ku baax nee Moussa dara mësta ñaaw Moussa yow lu rafet rek nga may seereel sama fekke ak sama gannaaw nee yal na yàlla yàggal ànd bi nee sunu borom bàyyi leen ak seen trang bàyyi leen ak monsieur le maire ci barki jàmm sëñ Tuubaa nee maa ngi koy ñaanal baax maam Cheikh ka jërëjëf nee te xam loo suñu dara lépp luy suñu yitte rek nañ ko bëggee nga koy defee dañ ca taxaw kon nag liggéey bi mu liggéey sëñ Tuubaa yàlla bu bu ko dara fakk jerejeuf sama xol sedd na taala wa barakatuh. mbollem bokk yi su fekk ak soppe yi ak xarit yi ak wëllëre yi serigne bi ne ñoo ngi leen di nuyu ci kaddu serigne mam Cheikh Ibrahim Al moom Seex Sëriñ Saar di rakk Sëriñ Basiiru Saar jaamu Sëñ Tubaa Xaadim Rasuul mu feggoo ak rakkam fa tabaarakallaa Sëriñ Seexuna Saar ànd ak mboolem magi taalibe yii ñu àndal ak bay sëriñ kenn mii nga xam ne moo mag fii ne ci turandooy bay sëñ saar yi wala maam sëñ saar yi di xalifa baay aadama kenn sëriñ bi nee soxna Anta sa baay sab xarit sab soppe sa wëllëre moo lay nuyu nuyoo boo xam ne ak ñaan nag la ca lal akuk cant ak ngërëm gu jóge ci moom tàbbi ci sa jëmm ji nee kaddom kàddoom nak moy mooy serigne ibrahim Khalil Sar, sa wayjuru bax wa di sa di la ñaanal yalla bu bax ne ñi ngi dalal bu baxa Sering serigne Modou Mbacke si momu dugg ci legi neena di serigne bi di sen mak di xaritam nee di kër gi nag nee bëgg kër gi lool nee na ñu koy dalal bu baax sëriñ bi nee soxna Anta sëriñ maam Cheikh nee kàddug sëriñ Ibrahima xalil Sarr ginnaaw nag bim la nuyoo ba nopp te ñaanal la nee muy seereloo yàlla ak fa tabaarakallaa bokk yi ñu fi fekk li leen boole muy bokk goo xam ne yàllaa ko tànn tàbbal ko ci seen biir waaye nag bokk googu itam yow soxna Anta Sarr danga koo sàmm lool te sàmme ko ci ab yar ak ay teggin akub yëg sëriñ bi loolee ku dund kër gi xam ne sëriñ bi ne xam ne loolu rek mooy sama doxin sëñ soxna sëriñ bi ne lii muy bëgg a wax ñi dund kër gi ne bu daaneelee sëriñ son bi ne da xam ne li muy wax nag lu wér la dëgg la ne ndax moom de da daan wax ne njabootuk maam sëñ saar gi la ca tàmbalee ci sëñ Basiiru Saar jaamu sëñ Tubaa Xaadim Rasul te moo ko boole ci yëf yi mais xàmmewu ko ñenn ci ñi nga xam ne ñoom la seex sëriñ Saar bokk ak Baye sëriñ ne moom lay dund ci góor ñi ci jigéen ñi ne ba ci moom mii fa tabaarakallaahu sëriñ bi ne lool nag ak yëg la ak yitte la ab taxawaay la waaye nee nag ñu koy sante fa tabaarakallaahu way juróom wee nga xam ne nàmputal na ko ci taalibe nàmputal ko ci bopp nàmputal ko ci nangoo jaxasook say bopp sëriñ bi ne mu dox ci doxin wu xër nag woo xam ne ne lii nag mooy sabab bi ne bin jógee ci Cheikh Mouhamadoul mustafa ndax mooy buntub kër gi ne buntu nag ku bëgg a fa ngay jaar de bo beugé saw duggin rafet né bañ joggé ci seigne Moustapha né xëy na nag war na yaatal fu bari jaar nañ ci seigne Cheikh kan dogo jëm ci fi né buñ fi joggé nak di ci jotal rek ci biir kër gi ba fuñu mëna yëm rek wala ñu jéxal sëriñ bi né soxna Anta yow mom to nak Cheikh sëriñ bi dafay wax ne bu nu jógee fii la ñuy njëkk a jawal si ci yow ba noppi jëm fu ñuy jëm lool nag sa taxawaay moo la ko may ne am nga jom am nga ngor am nga fulla am nga fayda xam nga sa bopp bëgg nga sa bopp bëgg nga yit say bopp ne yàlla na nga yegg te yeggale sëriñ bi de sëriñ Saalix nag daana wax ne yegg nag lu jafe la ndax nit ki dana jël dugub am yéeney faraasu ko la mu tibb am na lu tuuru foofu nee loolu yeggul de nee ba muy ji itam am na lu tuuru nee loolu yeggul de bi mu saxee am na lu mu dagg loola yeggul de nee bi muy góob am na lu mu dagg ba yegg waaye loola wadd nee loola yeggul de nee bi ngay bojj am na lu fa def nee loola yëggul bi ngay mooñ am na lu fa def loola yëggul nee ba ba ngay tibbi sax am na lu def ci say loxo te yëggul de nee bi nga suuree guq nga dox gallax ndiku génnewaat dara loo yéene woon mu yegg mu génnaat kon yegg nag jafe na de sëriñ Soy bu ne noo ngi lay ñaanal nee ci sa barkeb baay jaamu sëñ Touba Xaadim Rasul ci sa barkeb maam Cheikh Serigne Sarr ak way juróom wa maam Cheikh Ibrahima Sarr yàlla na nga yegg te yeggal ne yegg kese ne du doy du jom du njàmbaar waaye yegg nag te yeggale moo di njàmbaar sëriñ bi ne yàlla na la ko yàlla defal sëriñ bi ne bari nañu ñu fi daje. ñoo xam ne dara andiwu leen jaamu sëñ Tuubaa andiwu leen sa jikko rek leen fi andi ne kon nag foofu nga teg sa tànk bu ko teggi wéyal te ànd ak sa maam te ànd ak sa baay wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barak. bu ko defee kon. ne bu ko defee kon. Touba fi ñu fi duggee. nu fi duggee. dugg leen nee dugg nañ sunu kër. dugg leen nee dugg na sunu penc. sunu kër. nee sunu kër. lu tax sunu kër. nee lu tax sunu kër. wax nga ko léegi. nee wax nga ko léegi bas. maar Mbacke. Maram Mbacke. moo jur Mati Mbacke. moo jur Mati Mbacke. Mati Mbacke. Mati Mbacke. jur Ousmane si. jur si. Ousmane si jur Seydi Hadj. Ousmane si lu rafet lii am na. nee lu gën a rafet lii na. waaye nag. nee waaye nag. ñu ñëw fekk sunu kilifa. nee ñu ñëw fekk fi sunu kilifa. sunu xalifa. sunu xalifa. di alaaji Moodu Mbàkke si mu baax mii di sunu xalifa. sunu xalifa la. nee sunu xalifa la. ci askanu seen. ci nee ki ko jur. Sen Mustafa si, sëñ Malik Basin si, sëñ Malik Basin, Makhtar Penda Makhtar Penda ak Ousmane si mi jur Alaaji Malik, Nyobok bokk benn bay Dengkel la de ne Demba Bune moo jur ne Alaaji Muudu Mbàkke si mi daal sunu kilifa la ci ne ci wàllu ndeyam ak sama ndey ak sama ndey ne ñu bokk benn men bokk néegu nee ñu bokk néegu ndey. nee su ma fekkee sëñ Modou Mbacke si. mu toog. fekk naa fi sama xalifa. nee soxna maam Karim Mbacke mii nuyoo. baayam. baayam. sëñ Moustapha. sëñ Moustapha. ko jur. nee sëñ Moustapha bu ma saa ñëw Koungheul. di baayam. day mi ngi dal kër sa kër alaaji ma samba mu ngi dal kër alaaji ma samba ma sambu ma sambu mook sama kër baay ñoo sama kër baay jàkkaarloo tëkku ngeen tëkku ngeen da daan ca kër ga ne da daan jógee ca kër ga baayam sëñ Moustapha baayam sëñ Moustapha ma samba ñëw siyaari sama baay alaaji daam ne kon palaat bii tey ne kon palaat bii tey koosi bi bii tey koosi bi bii tey na leen wóor na na leen wóor na ni. Alaaji Malick teew na. Alaaji Malick teew na. Serigne Touba teew na Serigne Touba teew na. ci pencum Lansar mi. waaye nag. waaye nag. soxna Anta. nee soxna Anta Sarr. di jigéen joo xam ne. joo xam ni. Sëñ Touba daf ne. Sëñ Touba daf ni. soo déggee nit. soo déggee nit. te mosoo koo gis. te mosoo gis. lu tax nga di ko sopp. lu tax di ko sopp. tur tur ba ngay dégg. nee tur ba ngay dégg. mu neex la lool. mu neex la lool. te gisagoo ko. nee te gisagoo ko. nga ñëw nag. nee nga ñëw nag. ba gis ko. ba ko. fekk ca moom. fekk ca moom. taar boo xam ne. taar boo xam ne. koy gën a sopp. da nga koy gën a sopp. su ngeen dëkkee. su ngeen dëkkee. jikko ja. jikko ja. moo la fay bàyyi. moo la fay bàyyi. te ñett yëpp dal na la. nee ñett yëpp dal na la soxna Anta ñett yëpp dal na ko tey. ne ñett yëpp dal na la. sa yu baax yii. sa mbokk yu baax yii. ma fekk fii. ma fekk fii. ñuy samay mbokk. samay mbokk. ñu bokk Seydi Hadji Malick. ñu bokk Seydi Hadji Malick. bokk Sëñ Touba. bokk Sëñ Touba. bokk lépp. bokk lépp. dëgg-dëgg. ne dëgg-dëgg. ku baaxul. ku mënoo am lii. mënoo Anta. Anta. ngi lay ndokkeel. ñi ngi lay xadara bi nga xam ne nag boole. ne xadara bi nga xam ne moo ñu booleel. xadara bu mooy islam. ne xadara boobu mooy lislaam. islam doy na. islam doy na. damaa fekk sëñ Moutala ca Abidjan. damaa fekk Cheikh Mouhamadoul Moutala ca Abidjan. ma dem nuyu jukko. ne ma dem nuyu jukko. ànd ak benn doomam. ànd ak benn doomam. sëñ Modou sëñ Modou Guy Mbind. sëñ Modou Guy Mbind. ñu dem siyaare jikko. ne ñu dem siyaare jikko. mu ne ma Cheikh Ahmad Tidiane. mu ne ma Cheikh Ahmad Tidiane. biig laa gis sa maam El Hadj gis sa maam El Hadj Malick. mu war fas. mu war fas. ñëw ci kër gi ñëw ci kër gi. nga xëy rek nga xëy si fi yegg si fi. li ma gën a neex nag. li ma gën a neex nag. mooy sama kër gii ma tabax fii ci Abidjan. mooy sama kër gii ma tabax ci Abidjan. defee wu ma ko loolu islam rek. defee wu ma ko loolu l'islam. l'islam bi rek moo tax ma tabax. rek ka ma tabax kër gi. te ni ma ko defee fii ci Abidjan. te ni ma ko def ci Abidjan fii. na laa ko defee Amérique. dama bëgg. damaa bëgg. nga toog nga toog. gunge ma gunge ma. ñu ànd ñu ànd. dem Cotonou. dem Cotonou. suñ fa jógee suñ fa jógee. dem Dakar dem Dakar. suñ fa jógee suñ fa jógee. ànd nga dem sama liggéey bu mag ba. nga dem sama liggéey bu mag ba. ca biir Amérique. ca biir Amérique. nga gis nga gis. la ma liggéeyal. la ma liggéeyal Seydina Muhammad ànd naa ak moom ñeenti voyage yoo xam ne. ànd na maa moom ñeenti voyage yoo xam ne. ba ci biir Amérique. ba ci biir Amérique. fekk tubaab yëpp. fekk tubaab yëpp. tëdd fi suuf di wax askay Serigne Touba. di wax askay Serigne Touba. tey Cheikh Mourtala yàq na lislaam. mu ne ma lii nag. mu ma lii nag. bi rek a tax. islam bi rek a tax. bu doon man rek la. bu doon man rek. waaye Touba doy na ma sëkk. Touba kon Anta. sa bis bii. bi bis bii. nga defal sa maam. nga defal sa maam. defal ko sa baay. defal ko sa baay. di Serigne Ibrahima. di Serigne Ibrahima. Sarr. Sarr. mu baax sëñ Basiirou Sarr. jaamu Serigne Touba. mu baax mi mu baax bi mu ñëw fii. nee bi mu ñëw fii. fekk fi dara. fekk fi dara. mu fakk. mu fàkk. ngir yàlla ngir yàlla. ak sëñ Touba ak sëñ Touba. ñëpp fekk si ko fi ñëpp fekk ko fi. liggéey li mu fi liggéey liggéey fi li mu fi dem dem. ngeen ñëw ngeen ñëw. taxaw taxaw bu rafet bii. xam nga ne moos. ku la yëg ku la yëg. yàlla yëg na la. yàlla yëg na la. ku la yëgul yàlla yëg na la. ku la yëg yàlla yëg na la. ku la yëgul yàlla yëg na la. yàlla na yàlla def barkeel. yàlla na yàlla xeeb doole. kii barke Serigne Touba. barke yonent bi barke bés bi. Eh, at yu bëri nag. at yu bëri. daf may boole ci bés bi. daf may bi. day génne sama photo. day génne sama photo. ci internet bi yëpp. ci internet bi ne pare naa ko sëñ Cheikh Tidiane. ne si. sëtu Cheikh Aladji Malick sëtu ma ne ko ma ne ko. su ma demoon Amérique sax danaa dagg bee ñëw fekk si ko def nga ko de. kon kontaan naa ci ne kon kontaan naa. bëgg naa ci yow. naa ci yow. sa booloo mi sa mbooloo mii. pexe mayu la ko. pexe mayu la ko. baax rek la ko may. ak xol bu sell. a xol bu sell. صل على محمد Murtala Mbakke fii ba fan jëm fii Seydina Muhammad Cheikh Ba yonent bi nag ñëpp jóg màggal Seydina Muhammad jóg leen màggal Seydina Muhammad